Abdul Akram Mbàkke mu ni bismillahi arrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Modou maa ngi lay jox nuyoo boobu sëriñ Modou Lo mu soxna Ndéen Ngaabu sa mbokk sa wëllëre sëriñ Moustapha Abdul Akram Mbàkke moo jëmale ci yow nuyoo boobu di la wan ne itam di la wan ne itam bu sañoon ñëpp fi la ñuy fekk. bu ñu sañoon ñëpp ku ñëw fi la ñuy fekk ñu toog. Euh, bañ xam ne yaanu andi. ba ñu xam ni sa jëmu ji moo ko andi. waaye nag. waaye nag. dama waxoon ak sëriñ bi. dafa waxoon ak sëriñ Muntaxa. xam naa yéex a jóg gi. xam naa yéex a jóg bi moo waral mu jiitu. moo waral sëriñ Muntaxa jiitu ko. ma jaaroon fee ca këram. mu jaaran see ca kër Serigne noo ngi daje ci yoon wi léegi. maa ngi daje ak Serigne Mountakha ci yoon wi léegi. waaye dama ne alhamdulilah rabbil alamin waaye bi daje dajee moom Serigne Moustapha dafa wax ne alhamdulilah rabbil alamin ndax la ma waxante woon ak yow. ndax la mu waxante woon ak yow. ku ñëw rek fekk fi. ku ñëw rek fekk ñu ndax li nga yor. ndax li nga yor. yoral ko Serigne Touba. yoral ko Serigne Touba. darul liggéey bu ndaw. da liggéey bu ndaw. ndax li waroon a jàngal tuut tànki ndax li ñu waroon a jàngal tuut tànk yi. te ñenn ñi mu fatt leen. te ñenn mu fatt leen. mu fatt fatt leen. ñenn ñi mu fatt leen. bi ñu mag. bi ñu doonee mag. nga jàngalaat ko mag ñi. nga jàngalaat ko mag ñi. ci ndigalal Serigne Touba. ci ndigalal Serigne Touba. muy jéem a defaraat jikko yi. muy jéem a defaraat jikko yi. jéem koo defaraat defar bu mucc ayib. jéem koo defaraat defar bu mucc ayib. ci dëkku Sëriñ Touba bi. ci dëkkub Sëriñ Touba bii. kon nag liggéey boobu. kon nag liggéey boobu. Eh, ni nga waxee léegi ne sëriñ bi wax na ko. ni nga waxe léegi yow sëriñ Modou Lo ni sëriñ bi wax na ko. wala nga wax ko léegi. wala ma wax ko man Mor Talla Fall nii. Eh, kon ñun ñëpp rek. kon ñun ñun rek. dana war a tënkuwaat. dañoo war a tënkuwaat. ànd ak yow ci liggéey bi. ànd ak yow Serigne Mouhamadou Lo ci liggéey bi. bañ la cee fakkastal. bañ la cee fakkastal. Eh, nangu li yàlla dogal. te nangu li yàlla dogal. Eh, nit mën naa am mu yor benn liggéey ci dëkk bi. ndax nit mën naa am mu yor benn liggéey ci dëkk bi. te du bokk ak bii. te du bokk ak bii. ndax bii moom kaay baax la. ndax bii liggéey moom kaay baax la. kaay ma baaxal la. kaay ma baaxal yoonu lislaam waa ngi nii yoonu lislaam waa ngi nii yoonu siraatal mustaqima ngi nii yoonu siraatal mustaqima ngi nii kaay ñu ànd jëm ci kaay ñu ànd jëm ci feeñalaat sa liggéeyu maam feeñalaat sa liggéeyub maam wane ne wane ni naxul kenn naxul kenn kenn dimbaliwu ko ci lenn. kenn dimbaliwu ko ci lenn. moo dimbale ñëpp. moo dimbali ñëpp. waaye ci jub la amee ndimbal. waaye nag ci la amee ndimbal. ba dimbale nit ñi. kaay nu jub nag. kaay nu jub nag. ku la cay woo. ku la cay woo. ma nga lay dimbali. ma nga lay dimbali. ku la woo ci laneen. ku la woo ci laneen. ma nga lay nax. te bis dana ñëw boo xam ne. te bis dana ñëw boo xam ni. mu yowmal xiyaam. mu yowmal xiyaam. sëriñ bi dana layoo ak ñëpp. sëriñ bi dana layoo ak ñëpp. dana yey ñëpp. dana yee ñëpp. ndax lislaam la woote. ndax lislaam la woote. Eh, yàlla yàlla moo digle li muy digle. yàlla moo digle li muy digle. jaarale ko ci sallallahu alayhi wa sallam. jaarale ko ci sallallahu alayhi wa sallam. mu ne dann loola. mu ne dann loola. ba am ca lu kenn ba am ca lu kenn amul. kon ku ànd moom. kon ku ànd ak moom. nii rek la war a def. nii rek la war a def. fii rek la war a jëm. fii rek la war a jëm. fi nga jëm. muy fi jëm. kon nag ginnaaw jot ay murit ndigal mu ne kon nag ginnaaw nee nañu murit ah, ndigal te mooy ndigal ku am kilifa ku am kilifa ñàkkoo dara ñàkkoo dara ku ko amul ku ko amul amoo dara amoo dara ginnaaw jox nañ ñu ndigal ñu àndaat ak yow ginnaaw nag ku tedd ki jox nañu ndigal ñu àndaat ak yow eh, dañ naa dann ndigal la dañu naan dann ndigal la te kat sëriñ Muntaxa te kat sëriñ Muntaxa eh, na ko murit yëpp ñaanal na ko murit yëpp ñaanal ndax kat ndax kat. li ñuy xamee waaju baax. li ñuy xamee waaju baax. ba mu jógee ba tey. ba mu jógee ba tey. ci loolu la ne. ci loolu rek la nekk. man ànd na ma ak moom ñeent fukki at ak juróom-benn. moom sëñ Moustapha Abdoul Akram mii ànd na ku tedd ki sëriñ Mountakha Mbacké ñeent fukki at ak juróom-benn. sëñ Abdou Lahat moo nu boole. sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad moo leen boole wan. ba ma demee ci moom ak léegi. ne ba mu demee ci moom ak léegi. ak bis ba ma fa jógee dellu fa ma jóge woon. ak bis ba mu fa jógee dellu fa mu jóge woon. ak léegi. ak léegi. musuma gis ci moom lenn. musta gis ci Serigne Mountakha lenn. xanaa dolliku bi jaaw. xanaa dolleeku bi jaaw. waaye nu nit di jaamoo yàlla. waaye nu doomu aadama di jaamoo yàlla. gisuma ku ne ci kanamam. gisul ku nekk ci kanam Serigne Mountakha. ku ko gën a nekkub taalibe. ku ko gën a nekkub taalibe. gisuma ko gisu te li may wax lu wér la. seen Moustapha nee na. te li may wax lu wér la. du ko wax ci ku ku koo xam ne loolu nekkul ci moom. duma ko wax mukk ci koo xamee ni loolu nekkul ci moom. donte dañ ne yaa fi ne. donte dañ ne yaa fi ne. waaye li may wax damay bañ ëllëg man it. waaye nag moom nee na li muy wax dafay bañ ëllëg. ah yàlla jëppi ma ci yàlla buur bi jëppi ko ci wala sax mu jëppi ma balaa ëllëg wala yàlla jëppi ko balaa ëllëg kon nag li ñuy li li tax ndigalam mat a def nee na kon nag li tax ndigalul Sëriñ Muntaxa mat a jëfee mooy lii mooy lii muy lii. muy lii. ak lu dul lii. ak lu lii. bu ñu ko yàkkamti. bu ñu ko yàkkamti. nañ ko déglu. nañ ko déglu. nañ ko bañ a def wujju. nañ ko bañ a def wujju. bu ñu ko def morom. bu ñu ko def morom. du moromum kenn. du moromum kenn. bi mu toogee di sëñ Touba. bi mu toogee di sëñ Touba. loolu jeexal na wax ji. loolu jeexal na wax ji. waaye nag. waaye nag. la dàq. la dàq. nga jaar ci euh, fi mag ñi jaaroon nga jaar fi mag ñi jaaroon ndax sëriñ bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon fi la jaar ndax ku tedd ki xaadimu rasul fi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon fa la jaar jaarale fa mag ñi jaarale fa mag ña ay doomam jaar fa ay ak njabootam jëpp jaar fa ay doomam ba ba nii ba egsi nii kon nag kon nag bu fekkee mi ngi fi bu fekkee ni ma ngi fi yàlla dogal ci coobareem yàlla dogal ci coobareem mu jox la ndigal mu jox la ndigal ci barab bii ci barab bii nga def ko nga def ko ngeen bokk liggéey bi ngeen bokk liggéey bi mu wax loolu suñ mun taxaa wax loolu suñu fi teewee nee kon suñu fi teewee ginnaaw bu ñu la santee ci li jàll ginnaaw bu ñu la santee yow sëriñ Modou Lo ci li jàll lépp daañu ñaax taalibe yëpp dinañu ñaax taalibe yi nag yëpp yëpp laabire leen laabire leen ñu xam ne ki ñu àndal. ñu xam la ca dàq. la ca dàq. mooy déglu ko. mooy déglu ko. te ñaanal ko. te ñaanal ko. ndax mi ngi liggéeyub sëñ Touba boo xam ne. ndax ma nga liggéeyub sëriñ Touba boo xam ne ku yabu ñaanal ko. ku yabu ñaanal ko. mu yàgg fi. mu yàgg fi. ba li mu war a def. ba li mu war a def. li ci ëpp. li ci ëpp. mu def mu def ko. aajo faju walantaha arabun ilal ila arabi ndax aajo ju faju. ndax aajo ju faju. janeen sosu janeen sosu kon faw ñu bàyyi fi ajo kon faw ñu bàyyi fi aajo waaye aajo yi gën ci ñun waaye nag aajo yi gën ci ñun muy am kilifa. muy am kilifa. te doo xebet ci kilifa ga dara. te doo xebet ci kilifa ga dara. loolu ku ko yàlla defal. loolu ku ko yàlla defal. war nga ko ne dann. war nga ko ne dann. kon ginnaaw joxe na ndigal. kon nag ginnaaw Serigne Mountakha joxe na ndigal. ci safinatul amaan. ci safinatul amaan. te eh, Serigne Modou mi jiite ko. te Serigne xam Lo mi jiite ko. ak yéen ñi ànd ak moom. ak ñëpp ñi ànd ak moom. bu ko ci bu ko ci gone gi am gone gi am juróomi sax. bu mu ci xeeb boppam. nee na gone gi am juróomi ak sax ba mu ci xeeb boppam. ku jub daal. ku jub daal. yaa ngi ci gannaaw yaa ngi ci gannaawam. te li muy wax. li muy wax. ku ko déglu. ku ko déglu. xam ne. xam ni. xam na ne ëllëg daañ ko laaj li ñu ko dénk. xam na ni moom ëllëg dees na ko laaj li ñu ko dénk. ndax li ñu ko dénk woyoful. ndax képp li ñu ko dénk woyoful. kon sëñ Modou. kon sëñ Modou. maa ngi wàcce kàddu gi fii. sëriñ bi nee na ma ngi wàcce kaddu gi fii. di la ñaanal. di la ñaanal. yàlla gën gën laa dimbali. gën laa taxawu. gën laa taxawu. ci liggéey bi. ci liggéey bi. may la wér. may la wér. ba ni nga ko bëggee. ba ni nga ko bëggee. yàlla euh, dëpp wëlbati sunu xol yi. yàlla wëlbati sunu xol yi. ba ñu mën a topp jub gi. ba ñu mën gi. ci dëkk bépp. ci dëkk ndax ndax dëkk bi. ndax dëkk bi. lu ne ci. lu ne da sonn lool. da nga sonn lool. ndax am na ñoo xam ne ci ñooñ dëkk bi lañ. Mm. ndax am na ñoo xam ne ci ñooñ dëkk bi lañu. te du ñu neex a lijjanti. Mm. te seen i mbir nag du neex a lijjanti. te yaa ngi ci biir. te yaa ngi ci biir. waaye wéyal rek. waaye wéyal rek sëñ moom. sëriñ bi sos dëkk bi. sëriñ bi sos dëkk bi. ak ñaan yi mu ñaan. ak ñaan yi mu ñaan. lenn li boo ko xoolee ci Matlabul Fawzayni daal di koy gis. Mm. lenn li boo ko xoolee ci Matlabul Fawzayni daal di koy gis. lam nangulee xéewal yi mu ñaanoon. la mu nangulee xéewal yi noonu la lay nangule jub gi mu ñaanal noonu la lay nangule jub gi mu ñaanal yàlla na la ci yàlla defal ndimbal yàlla na la ci yàlla defal ndimbal te yàlla defal nu jàmm te yàlla defal ñu jàmm te lu mu mën a doon te lu mu mën a doon ñu sóob ko ci jaamu yàlla ñu sóob ko ci jaamu yàlla nan jaamu ji yàlla nan jaamu ji yàlla ku ci sa bopp métti sax nga fàtte fàtte koo àndaloon ku ci sa bopp métti rek nga fàtte koo àndal waxuma la baaraam buy métti waxuma la nag baaraam buy métti ku koy métti lu koy ku koy métti yàlla yàlla ku ñu mën a àndal. ku ñu mën a àndal. nañ ci boole yàlla. nañ ci boole yàlla. Eh, te te bàyyi ko xel. te bàyyi yàlla xel. te loolu laa dégg ngay wax. te nee na loolu la dégg sëñ Mutlo mii di ko wax. loolu la ñu baax ñu doon wax. lool la ñu baax ñëpp doon wax. loolu la sëñ Touba doon wax. loolu la sëriñ Touba doon wax. looloo tax mu wax ci njëlbéenu wax ja. nee na looloo tax mu wax ci njëlbéenu wax ja. sëñ bi dana layoo ak ñun te dana yey ñu bari. Serigne Touba kon nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla. kon nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla. te sellal ko. te sellal ko. nekk dëgg dëgg taalibey sëñ Touba. te wut kilifa. te wut kilifa. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa a ñàkk. jërëjëf tax rek nga agsi ci waxtu wi. fii rek la baaxee. waaw amiin suñu mbokk nga suñu wala rëgg euh, dañoo bokk pas-pas bokk lu ñu jublu kon yàlla ñu yàlla jàppale ba ñu am ci ngërëmul sëriñ bi amiin jërëjëf Mbacke jërëjëf xol seet na barakalla waaw tàllal leen tàllal leen ñëpp tàllal seen bi ñaar amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf allahumma amiin xam naa sëñ Moustapha nee na ñëpp tàllal sëñ Modou ñaan allahumma amiin amiin